mais donc yow boo demul deuxième tour doo allié wu ak lu laal pouvoir opposant ngay ngay jàppale. may mun a. Hmm. déggoo nga ma dama ne. parenage yi waxu waxuma nekkuma si ay détails parrainage jaagu parrainage moom su fekkee euh, cinquante neuf mille maximum yooyu ñu laaj mooy tax nit jaagu parrainage man damay jaagu parrainage loolu mm-hmm. c'est c'est c'est non man du ma nax sama bopp yooyu tamit may mën dama am njaboot du ma toog fii di di nax sama bopp jël sama famille di gën a exposé jël suma vie privée mais en terme d'alliance laa wax bu dee jàlloo ànduma est-ce que inéluctablement man képp koo xam ne dangaa jug pour mm. système bi fi nekk jeex soo ma soo ñëwee ñu ànd nga bokk nguur. waa nga ñàkk a bokk nguur. di war a ma wax may moom. Ah. war a fa ràkk te dama ne système bi fi nekk nii képp ku d'accord pour mu jeex je t'écoute. merci beaucoup.